man moom waaw pour man moom mun naa bu lépp naa essayé mun nañ souligner rab wolof parce que rab wolof xam na tey lan laa ko tuddee maternité moo boole xale yëpp comprendre moom bu ko neexoon tey jii bu ko neexoon tey ñun ñi kenn su juboo comprendre mais tey jii moom moo def lu rafet boole ñu ba pare euh, comme lu booy bi wax rek dañoo fiilante ñun ñëpp parce que ñun ñëppay déggante fii muy taal bi muy yenn gaay muy uus yaa ma gën a xam ñëppay déggante comprendre nga keroog waxoon naa ko si benn ceenu télé ne affaire yi ñun defuñ ko pour compét fo rek lañ ko defoon dañoo ñëwoon pour fo comprendre public bi nag ñooy jugé lu leen neex mais ñun noonoowuñ seen biir ñun ñëpp ay gaañal lañ ñun ñëpp dañuy filante fii ku fi nekk mën na sa couple morom filante rombul loolu esprit conscient baa xam nga ne rab kon làmb mhm. ñoo mën a mayante seen biir xaalis genre tey buñ jubawul tey ma point final buñ jubawul nan lañuy mayantee xaalis comme nga ñun tey jii ñoo mën a mayante xaalis lii game la rab game la game mooy comprendre nga pour ñu ko comprendre quoi rap game la game jeu la. comprendre nga foola ñun ñun dañ ko def nii par amour lañ ci am comprendre nga bëgg cee meeg maan looloo tax quoi mais nekkul fi di noonu ak kenn.